jërëjëf. jërëjëf. Cheikh Sarr. Alaaji Saala bii Guèye. ñaari jàmbaar yi taxaw. fàkk tëdd leen ku ci nekk da nga wane say preuve da nga liggéey ba egsi. dëgg la. Sa Thiès. Uh-huh. neewul may doomi Double Less rek. déedéet. neewul may rek ki Balla Gaye rek. déedéet. ndaxte yóbbante galgal ubul lamb. wallahi Sa Thiès dafa prouvé. Ah, ah. di prouvé. Ah, di prouvé. di prouvé beeg si fi meeg. di prouvé beeg fi. Reug Reug mii. bokk ci xale yi nga am nii. Reug Reug dafa prouvé. di prouvé. Reug Reug di prouvé. Reug Reug beeg si fii. Reug Reug tey ñoom ñaar. li nga wax ni léegi combat bii. boo leen xoolee ñoom ñaar. combat yu bëri la may fàttali. sama xel dina ci Xaadim Ndiaye. Xaadim Ndiaye ak Baboy. ak seen combat ñoom ñaar buñ ko musaan affiché kenn du nelaw. diggante Yékini Bombardier Mbacké. la ilaha illallah. diggante Balla Gaye 2 ak Modou Lo ak bi. Ah. dafa am lu muy symboliser. waaye balaa ñoo sori. dañuy bàyyi ñaari mbër ñu nuyu. ma seetaan ak loo leen di ñu ngi santaat yàlla bu baax. julli ci yent bi. sant sama ñaari waajur. di gërëm assistance bi yëpp. di ko dalee ci Père Gaston Makan sama mbokk mbër yi fi nekk ils sont nuyu sama mag Balla Gaye marle mandal Franc euh, Sokku euh, Boy di nuy Reug Reug di nuyu sama grand bi aussi di remercier waa Forza waaw mooy suma grand <laughs> di remercier supporters yi fi nekk yëpp ak amateurs yi ak euh, waa CNG di nuyu ñëpp di nuyu sama adversaire sa adversaire Reug Reug Reug Reug ñu bàyyi laa kaddu gi waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu santee yàlla julli sonent bi di ñaanal sama papa yàlla na ko yàlla xaaral jëna firdawsi di ñaanal sama yaay yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba si kanamu kanam di nuyu sama mbokki mbër yëpp maa ngi leen di nuyu ah maa ngi nuyu ñëpp mu limee damay juuma ah. di nuyu sama gaay ah waaw di nuyu waa Caaray Géej ma seen fay ah waa Caalaan John War ñoo joor Falia Sow Basar Basul ah waa Fimela waa Mbeelangij waa Ganjaay waa leen aussi combat bi waaw di nuyu ñëpp mu limee damay juum di nuyu sama gaay yi ma àndal nii ah waa léegi Sathiès Sa Thiès wuy Cheikh lan moo tax nga jékki-jékki jàkkaarloog Reug Reug ni ko dootoo am jàmm dootoo am jàmm tànk bis ba ñëwul. déggoon naa benn mbër. Ah, ah. bu woon mu ne kii sekkuñu jàmm ñu ko lu tax mu ne bëri door la ñu wax. Ah, waaw kon kay wala ñoo sekki jàmm bala senk déedéet kay li ñu liyee moo métti. bëre la xeex. foom góor la. yàlla ma yàlla may ndaw. maanaam maanaam daal bëgg bëre bañ bëre. amul maanaam amul lii amul lee bu yenduwul bu mu fa fanaan cool yi mën na bëri wax ji mën na bëri mais léegi yéen ñaar yéen ñaar est-ce que xam ngeen ni yéen ñaar amateurs yi ñoo soxla seen combat est-ce xam ngeen tayo combat bi yéen ko bëree war a bëre tayo combat bi est-ce que xam ngeen ni mu toll man la ñu ngi nii léegi nag léegi tàggoo tàgg léegi wool ñi lay jàppale rek rek vraiment ku si bi neex mu xool mu ngi xool instant bu jee neexul nag. non garaawul non léegi waxal moom dina ko génne signature bi li lañ ci bëgg mu doon signature boo xam ne vraiment dinañu waxante ci ay combat bi. Euh, Cheikh. Saalum bi nga moytul. man mbër mu ci dóor mën a dóor yi mbër mu ci dóor mën a dóor yi. ma xool ma xool ma xool. ah waaw waa d'accord jeex na gis nañ ko. Eh. léegi gis nañ ko non non non non non non. ah ñun non ñaar yëpp xale ngeen. maa seen papa. yéen ñëpp ay seen papa jeex na <laughs> samay doom ngeen. ñoom ñaar ñëpp ay booy lañ. léegi nag léegi nag non non non non non non non noonu noonu. aja Sarr déedéet déedéet Sarr loo wol wol wol wol ñu la jàppale Malick. Sarr liberté wóor mooy ñaari ndaw ñoom ñooy daj ay